kay ak elhaj ahmed aidara bismillah jàmm gën ay dee waxtaan a gën xuloo tribune yéene kaa ne ginnaaw nag résultat définitif yëpp a ngénne day waaw kàddu yi Macky Sall daal dinay jib na Macky Sall daal ah. jàmm la woote de président Macky Sall day waaw nee na maa ngi woote daal ab dialogue laa la wax national te luy jur tamit lu baax luy tabax teg ca te Abdou Diouf ak Abdoulaye waaw daal nañ leen woo ñoom tamit ñu daal di dikk nag daal di indi kon seen contribution ci rëdd ay yoon yu bees yu jëmale kon Sénégal gi di kanam président Macky Sall yamu ca ndaxte nee na danañ continuer nag di tabaxandoo benn Sénégal woo xam ne day dañ ko doon gént benn ñaar defar am réew moo xam ne day jàmm rek ak dal rek xam ne day dana neex a dund lool ngir Sénégalais yëpp ñeent am réew moo xam ne day dana suqali ko lool lalo tamit ci jàmm prospère et solidaire directeur fa ne moom président Macky Sall moomee waaw daal di ne woote na kon ab dialogue national wu rëy rëy na ca ñëpp ñëw Macky Sall ne tàllal naa sama loxo ñëpp moom président Macky Sall ci Vox Populi ne man de li ma gis mooy kenn gañewul te gañewuñ kenn il n'y a ni vainqueur ni vaincu te képp xam ne ne sànni nga sa carte keroog dimanche 24 waaw moo xam da ngaa fare ak nguur gi wala da ngaa fare ak opposition bi day yow moomee war nañ laa tàllal nopp déglu la bu baax a baax waaye tamit war nañ laa respecté Macky Sall ay waxtu samay kàddu de les ko yéene kaa ne cee boole tamit Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade mi le la Quotidien na wax naan de ab dialogue la enquête yéene kaay ne dëgg la na xol yi féex maa xol yaa wax la détente foofu la woote moom président Macky Sall ci yéene kaay ma jamal jaa ngi ne déggoo leen a gañe Sall kay bu dee cinquante huit virgule vingt six pour ñoo ko wooteel kon kay soxlawul opposition bi pour dialoguer wala pour gouverner déedwaay Abdoul Mbaye ne ah kay Babacar Gaye bu parti démocratique sénégalais ci Vox Populi waaw ne président bi mën na organiser ab élection présidentielle woo xam ni sàcc la une présidentielle frauduleuse ba nuppi nag di woo auto politique bi mu cey woo Abdou Diouf mu jógee ci biir réew mi ba léegi réew mi da koy intéressé Barthélémy Dias ci Vox Populi waaw ne ñi ndey tànk Khalifa kon génnul ci kaso bi waaw bokkuñ ci benn dialogue ci mim réew bokkuñu et gis nga waa APR ne sénégalais yii xam nañ li dañ leen a bàyyi ci biir rek ëllëgu Sénégal nag nekkul na ca Guinée Conakry gale la ñu koy négocier laa la wax xaar na ku dégg séeréer looloo tax maa ngi woo Karim Wade mu ñibbisi kon fii ci mim réew na ñibbisi Sénégal parce que xeex bi boo koy xeex fii ngay nekk ci Sénégal gii ngay nekk loolooy dëgg de réew mi quotidien mais la xew day ca kër Barthélémy Dias danawaa des la benn policier boo xam ne day kër Barthélémy lañ ko jàppee é eh way Samba Barthélémy Dias ci Vox Populi ne xam nga suñu demee ba suñu police bi nga xam ne moo war a yor suñu karange di yónni ay nit sama oto mais loolu problème am na ab élément wu DST la de direct info de police ci boppam nangu a na waa ji seen élément la yenn saay ay élément sur le terrain é eh waay samba waa yaana maar ci tribune yéen kaay waaw daal dina ñuy naqarlu ŋàññi nañu bu baax a baax wàllum organisation élection présidentielle yi lée waa yaana maar ne waaye nag luy njiig ñoom ñëppay njàkk tous coupable laa la wax yéen kaay gi ne ñi nga xam ne kon dañoo fare woon te opposition ba day dañu teg leen loxo waaw bàyyi nañ leen ñu ñu waaw waaye du pousse yéene kaay ne de colonel Kébé kay koy surveiller bàyyi ko bët bu baax comme méew moo teg safara kay libération yéene kaay ne daal lu ñuy expliqué day colonel Kébé mi lée dañ koy déglu lam fa wax lam dëggal ak lam weddi évidence yéene kaay ne Samba Sall day gañe na dabali 89,37 pour cent éwe eh Samba moom Mbacke Samba Sall ne su dee Fouta titre foncier la day suñu commune bi di Dakar Times ne référendum ba dee fukki poñ ak juróom waaw ñetti at a ngi nii coppite yañ daal ñu ngi di xaar ba tey de réew mi quotidien ne Mamadou Massali day démissionné na PDS parce que Abdoulaye Wade wóorkat la maar day taali waaye yow Massaly yow lu la dal wax day rafet maa ne Abdoulaye Wade wóorkat la man Massaly maa ko wax te wallaay réccu naa li ma doon xuloo ak ay Souleymane Ndéné Ndiaye ak Aminata Tall ak ay Idrissa Seck ak ñoomin seen doy waaye la xew ca yëmbal tam doy na waar sur saane Mamadou day ñu naan ko caam mi nga xam ne moom la jot ne moo ray gone kii di ameeg Seydi ñetti at xale bañ doon wër ma rey ko ko dugal naxal ko ginnaaw ga laa ko rek sama vélo ko ci allahu akbar exclusive yéene kaay ne hôpital Youssou Mbargane ba day waaw ñaar fukki millions yi